jërë ngeen jëf mbokki si di Info 2S TV dal leen nag jàmm tey nag dañ koy doxee ak ki nga xam moo di Cheikh Bara Ndiaye kàddu yi nga xamante si nag yëkkati na ko mu def ay révélation yu am solo yoo xam si ne moom mii di Cheikh Bara Ndiaye def na ko ginnaaw nag démb gis ngeen émission bi nga xam si doon na ko am mooy tàkkusaanu keppaar gi gi nga xam si nag moom mi nga xamoo di Cheikh Bara Ndiaye dina ko amal chaque alxamis mu nekk nag loo xam si nag kàddu yi am solo trop trop nag moom mii di Cheikh Bara Ndiaye la fa yëkkati kon nag dañuy ànd ak ñu digloo doo ki nga xam moom moo di Cheikh dégg na noonu gis ngeen révélation yi nga xamante ne si ne moom mii di Cheikh Bara Ndiaye nag def na ko ginnaaw nag li nga xamante ne si ne nag moom moo di instant bi fi réewum Sénégal toll ak li nga xam se moo di président Macky Sall li mu bëgg ci ki nga xam moo di Ousmane Sonko ndax xam ngeen Cheikh Bara Ndiaye wax ci nga xam si ne wax na ko wax na ne ki nga xam si nag moom moo di Ousmane Sonko dak Macky Sall daf lay nax te daf laa bëgg nax génnee ñëpp gëmloo na ne yow instant bi yow rek yaa mën a topp ci ginnaaw pour yore Sénégal loolu rek la bëgg pour rak nax la mais nag xam ngeen ne bu baax a baax Ousmane Sonko moom yaakaar naa ñu ko mën a nax ah, ah war mën a mënta nekk mais dina dina xaw a jafe quoi mais nag gis ngeen ki nga di Cheikh Bara Ndiaye révélation yu am solo yi nga xam seen def na ko di leeral li nga xamante si ne moo di président Macky li mu bëgg xelam sax jugewul sax pour rek eh, jugee rek ci bopp réew moom li mu bëgga rek mooy toogaat ci li nga xam moom moo di Sénégal ndax gis ngeen Cheikh Bara Ndiaye révélation yi nga xam si nekk def na ko wax na président Macky Sall isaan li nekk ci xelam lenn kese la mooy nako lay def rek bu toogaat ci li nga xam si nag moom moo di bopp nguur gi loolu rek la bëggaat kon nag Cheikh Bara révélation yi nga xam si ne defuñ ko nag am na solo trop ndax xam ngeen ne bu baax a baax instant bi fi mi toll nii gis ngeen ne bu baax a baax ki nga xam moom moo di président Macky Sall moom démb gis ngeen kàddu yi nga xam seen yëkkati na ko kenn xamul boo xam élection yi dina am avant le après avant le 2 avril ou pas après 2 avril ndax xam ngeen ne biñ ko laajee loolu rek euh, de façon wax daal la wax quoi dafay xaw a jaxase xelu Sénégalais ndax dane à partir de 2 avril mom programme am jeex ci réewum Sénégal moy dal à partir de 2 avril président Macky Sall dootul nek président du Sénégal ba paré nak est-ce que nak mom waxat benen wax ki nga xam se moo remplacer est-ce que dina def passation de service le 2 avril même mu tontu ne mm, li nga xam ci ne moom moo di euh, réew mi duñ ko bàyyi euh, ab man nan ka joxe dal mon dal nim ko à partir le 2 avril président bi fi ñëw man na nek Heu, avant le 2 avril wala mu nekk tamit après 2 avril moo tax yi dañ dañ coo nekk di jiixi jaaxa dina am avant le 2 avril wala du am wala après 2 avril lay am. Mu nekk nag loo xam te instant yi sénégalais yëpp yëpp doy doy na waar ndax xam ngeen bu baax sénégalais yi li mu bëgg mooy élection yi am élection yi am ba nu voté xam fu ñëpp féete Sénégal nekk si jàmm ndax xam ngeen moom président Macky Sall nee jàmm la woote kon nag ñiy séentu nag Euh, président Ousmane ko ak euh, président Diomaye mu ñu génn na xam ngeen président Macky Sall lim ci wax kàddu yi mu ci yëkkati wax na no biñ ko laaj ci wàllum jolog bi pour rek ñu mën kaa fekke mais moom euh, buñ ko laajee ci wàllum seen libération moom jafeelu ko benn yoon dana c'est possible mën naa nekk mais nag dafa am procédure yoo xam si na moom la ñuy jaar mooy ci yoon juge leen war a def lépp den ko def kon nag la xaar mooy ñoo ngi xaar peut-être balaa lundi ndax lundi lay dialogue bi tàmbali au mardi léegi diggante bu est-ce que président Macky Sall président Ousmane Sonko ak Diomaye est-ce que dinañ ci génn loolu lay Sénégalais yëpp di xaar na xam ngeen ne baax a baax détenu politique yëpp ñi nga xam se ñoo ngi leen libéré isaan bi ah, baaxee nañ trop te libération bi nga xam te nag ñoo koy ama ci li nga xamante détenu politique isaan yi Sénégal ñëpp kontaan nañ ci quoi mais nag lu ci gën a kontaan Sénégal li leen gën a kontaan loolu ñu ne élection yi jàpp nañ ko ginnaaw date bi moom ñëpp nga koy wax te date bi moom datu askan wi la kon nag dat bi nañ ko jàpp ci date bi gën a baax vraiment isaan bi moom Sénégal moo nekk ci loo xamante ne moom instant yi doon waar def na c'est la première fois xam naa man bi ma xam politique ba léegi yàggut mais man lii manqué soo gis datu élection ko jàpp ci date bi date bi sunu data <laughs> moo leen date bi ma Cheikh Bara Ndiaye doo waree nag Cheikh Bara ay Cheikh Bara non vraiment gars yi Cheikh Bara dañuy dañuy faj quoi gars yi woy leen di abonné te ngeen like vidéo yi ba pare nag ngeen sem partagé gars yi incha allah ba beneen yéen ma indi laa leen beneen émission bu neex a neex la chaîne du peuple. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de vous liker et surtout de vous partager. Merci.